gi raak ñu seeti kenn ci wet gi mi danse mais danse woo <laughs> ngi nii mais le monsieur le ministre d'État auprès de son excellence Macky Sall tey yaa information ne bés bi ñu wax yéen am na journal bu bind ne tey la anniversaire lay Wade maanaam tey la anniversaire am Amath Dansokho nag ci anniversaire Ablaye Wade mu fas yéene ci àddu ay kàddu ñu lañ ko déglu depuis ca pale ba lan lay wax ak nga xam ne moom mooy ci wet gi yéen ñëpp maa leen di nuyu di leen xamal ne boobu ba léegi Ablaye mooy wax te kenn tontuwu ko dama waxoon damay bàyyi ba bésu anniversaire am happy birthday euh, bu Ablaye Wade ma daal koy wax sama juróom ñaari euh, fulla ak fayda Ablaye dama bëgg nga xam ne lu jeex rek xamal ne euh, jeex na yaa aye woon 2000 ba 2012 ñaari euh, at la liggéey nga ne ma acca ci bit dàq ma sama yaakaar euh, war ma yàlla di ma may muñ di muñ ak ñoom Moustapha Niass sa copain yi nga doon bi nga nekkee ci tolof tolof ñun ñàpp nga nañu acca os ci biti dàq ñu yàlla dañu dimbale ñu dem ba suñu doom suñu rakk suñu xarit yàlla def ko muy président waaw bi Moustapha Niasse waxee ne mënul nekk euh, ministre moom day bàyyi xale yi ma ne ko kon naa puus le bateau de Moustapha puus euh, dans sa ko costé yàlla dimbale ma ma nekk ci euh, wetu Macky Sall xale boo gis war naa ut mag bu nekk sa wet di la conseil moo tax Macky li ma def ministre d'État auprès de Macky Sall aw ma intermédiaire sama diggante ak moom saa yu ma ko soxlaa dem mu gis ko te Ablaye loolu nga doon bañ tey am nañ ko ñu ko nangul Macky Sall wàññi na ceeb bi diwlin gi wàññi naana gi ba wàññi na netu gi netu jug ñu dem marché dem ba xam nañ ne takk netu bi doon jar juróomi dërëm wàññi nañ ko léegi mu ngi jar ñetti dërëm bu dee netu Casamance la moo gën a xeeñ bu dee bu Mali ba juróom benn la te fukki dërëm la doon kuy wàññi euh, kuy ak salatu kaani ak poobar ak nokkos ma ne di nga wàññi courant ak ndox yooyu mooy dund gi Ablaye réew mi yëpp boobu ba léegi yàlla daf euh, dimbali ma ne Ablaye su ma atam ci biir mu nekk gouvernement ma nekk opposition dañu naan dama soxor dama koy iñaane li may wax waaye yàlla mi ma ambassadeur Mali ngi fi bu fekkee mu ngi seetaan émission bi na na na dugg maa dem Mali cinquantenaire Mali ñu invité ma ATT ngi Sénégal tey bu du ma ma wax naka sutul noonu ATT moo ma invité président Mali ma dem ba Mali mu ne ma kaay ma yóbbu fi nga xam ne fa la ñuy dett suñu bagage yàpp depuis indépendance Mali ma koy visité man maay visité ba gis ñu dossier Sénégal ma yëkkati dossier bi rek ñaari photo benn photo bi ma taxaw waa ji ma loo fi gis rek Sénégal ma ne nii xool gis Lat Joor ma ne kii de Lat la ki taxaw ci wetam ñu ne ma général Potin la mooy ki nga xam ne bi mu demee ci la De Gaulle ñëw ma ne ki tegu ci kanam ñu ne ma Alex André la bi nga xam ne moo nekkoon chef de province bu Thiès ma ne waa gune gi taxaw ñu ne ma kii Ablaye la tudd sant Wade Sénégal dafa soppoon Lat Joor ma leen kat ñu ne ma Ablaye Wade la tudd ma xool jëmm ji xool ko mooy Ablaye benn amul dara lu leen tàqal ma ne laa ilaaha illallaah xaar yëkkati sama téléphone ne ko Ablaye mu naam ma ko ngan nga xam nga dafa bëgg ku ko jay mu ma lu xewati ma ko dama la gis fu ma la foogul woon mu ma foo foogul mbaa jàmm la ko nga fotoog la joor mu ma bu siw soo koy wax ma lay tëj boobu ba léegi ñëw ma kon wax tey laa ko ñeme wax ndax man maay tëje moom tëjewul léegi ñoom ñoo yor nguur gi Ablaye du xale tey du xale ëllëg Ablaye ñun ñëpp moo ma ku ko weddi rek da xamul ndax la bi muy dund ak léegi kenn mënu koo wax maa ci teg sama bët foto baa ngeeg man te boo di wax may génn foto bi léegi wane ko Ablaye nekk ci xale war na jàpp fukki at ak juróom-ñaar la ba tey kon tey bu xale yi jàng histoire du Sénégal buñ leen laajee Lat Joor laaj leen Samori Touré laaj leen Alboury Ndiaye laaj leen euh, Aline dama ne war nañu xoolaat bu baax laajaat xale yi kii Ablaye Ablaye ay ne boo ne en 1900 rek daanu nga boo ne danga naan Ablaye ay ne avancé si Christ maa ko wax avancé si Christ